asalaamaaleykum mbokk yi tey nag ñu ngi woon fii ñëw ci Silema 2 fas yéene nemmeeku nemmeeku si famille Sow bi nga xam ne tiis wi moo dal tey seen kaw euh, ngir xool si mbir yi na mu tëddee ndax ba ñu jotee am information bi xamal nañu ne kii xale bi di Bilal euh, ñenn ñi ñu ngi naan dafa xaru ñeneen ñi ne tamit mort naturelle la ñu fas yéene ñëw dugg si kër gi xool mbir yi na mu tëddee ak it famille bi nan la amee boobu leen nouvelle pour amit ay firnde yu leer. ci la jot a xew. te xam daal moom daal xëy na ñun ñun daal ci guddi toog nañ fii de ñu jënd warga ko moom te la daan koy xëyee def xale bu jàngul dem ma nga tey histoire moom musuma dégg buñ jëlaat moo koy ba tey suñu ko waxal dara lu ñaaw daal xëy nañ ko xëy na ci guddi gi fii na root na toog nañ fii toog fii ba daal na nañ yeew moom ci fajar gi ma yeko ko ba mu jógoon jógoon na ci fajar ba jóg ba dem ci wanag ba ba duggaat ci néegam tëdd ba mu duggaat ci néegam tëdd daal ñu fëgg fëgg fëgg boobu nag ba ñu fëggee daal dara wuyu waaw ñu fëgg fëgg fëgg dara wuyu ci lañ daaj dugg ñu yàlla tey dafa wàcce natt ci suñu ko waaye nangu nañ ko ak fukk la fa juróom yàlla moom natt man nag defi li ma ci nekk kër gi ma maay seen bàjjan maa leen maa ngi njukkal yaayam di toog bañ ma woowee kaw lañ ma woole woowee ni ma ndey seen am na lu xew sa kër damaa dewe jéggitali ñëw bi ma ñëwee nag foo ma fu ma nekk mais boo ma laaj naa leen ne lan moo xew lañ ñu ma koy nëbb ñun ma toogal toogal man ne wax leen ma ndax man judel laa lu mun taxaw wax leen ñun ma bilaal moo xam bilaal moo xam lañ ma wax ma daal di toog tudd yàlla ne leen bilaal xamul wax bilaal boo xamee ambulance ak du ñëw gaare ne dina ci buntu boo xamee man jullit laa ñu ni ma bilaal moo gaañu ne jërëjëf yàlla yàlla mën a jox bilaal ci mujj la te bilaal de yàlla bu ko jëlee dañ koy delloo rek yàlla ndax ndeyam mën naa jur bilaal te jur na Mouhamed magam kon Mouhamed moo gën bilaal man leen delloo yàlla suñu bopp waaye booba ba sax man mënumaa taxaw papa booba maa ngi jaayam li ñu ko lippet ma tekk bi ñu ci xam

tey ñoom ñëpp kenn gënu ma cee jege sama doom ma ko gënal waaye fekkewu ma xaw ma lu ko yàlla a jiin ndax ma ñëwee ndeyam di loolu laa ko wax sunu loolu lañ ko wax ba tey ñu ngi ko téye ko mu gëm yàlla lool nag keneen ku ne taxaw di wax waxal loola neex kooku ak suñu borom kenn ku ubbi sa bàmmeel lépp loo wax ubbi sa bàmmeel te di nga ko waxaat man nag lu ma ko jujjur di ñàkk daal lu tax ma gënaluma sama bopp ndax ëllëg dafa foor lool ëllëg rek lañ bëgg ñëpp yal nañu ko yàlla may mu nekk mu neex yàlla ñu am ngërëmal suñu borom waaye man lii laaj su ma fekke woon leneen wala ma xam leneen dinaa ko wax ndax man sama bàmmeel ma waaye li ma seere ci xale bi mooy maa ko génn tudd ko xale bu ndaw la xale bu yàlla bëgg xale bu nekk yoonu siraat mustaqim xale bi fu mu ndodde ci koñ bi koñ baa ngi nii ñëpp dañ xam ne bilaal moo daal bàyyi ma ay magama waaye yàllaa ko ci xale bi koré bi ñuy tudd fi laa ko mujj a gis ko yónni mu dem gum saa jëndali ma salat mu ñew amul ma yónni ko marché amul xalé yi di ko ke man leen ma téeméer man ko am defal pass xalé bi dafa son mom rek ngeen di yoon mu dem jënd sa ñew joxal mo lu may ci mom lu may di ko ñaanal suñu borom yal na sa ngërëmul yàlla dal nako yalla may aljana yi def ah man day fekkuma gisuma lo te yu tol sax degguma ndax bima toge fi fii ki la doon sebe kon mun taluma déglu leneen alxuraan xale bi bi ñu koy génne bëgguma koo xool xaw ma lu moom ba mu demee nag moom dugg naa ci biir néeg waaye bu fatara day rek sant rek laa ndax loo amul doo ko ñàkk te nag mu ne waroon naa xam ni bilaal moom amoon na nu yaakaar lool ci moom bëgg ko lool waaye xale bi mel ni moom du gudd fan ñaari bëri xale boo xam ne kenn mosu leen a aat ñoom ñii xale yi kenn a aat demuñu dikkuñu amuñu benn problème comme ñun ñun ñu dëkk ak waaw lañ ca jot wax mooy li ma war man ba ma ñëwee fekk man xamatuma fan laa nekk damaa dugg ci yaayam rek ñu nekk moo ci jooy kii mu ma ko ba léegi gis ma ko ba léegi ndax moom am nañu lu ñu nekk ni ko ñëpp yëgandoo ni ko ñëpp déggandoo daal man loolu laa ko boo xam ne ah yàlla baax na loolu daal am nañu naqar daal. Euh, nouvelle bi ñu jot nii nouvelle bu triste la bu metti la waaw kenn souhaité wu ko nag yàlla lu mu dogal kenn mënu ci dara waaw sànq daal laa nekk classe di jàngale benn élève ay xale ñoo ñëw sax ne ma dañ ma dañ ma soxla du ñu ay élève sax ci école bi ma ne ko lan la mu ne ma sa élève bi moom moo décédé. ma dugg classe mané man len ah j'ai je viens d'avoir une information bo xamni amna information bo xamni neexul mais nak mënuma ci prononcer wu tant que aw ma lu leer ci la yoni ben élève ñaar élève man ne dem leen ngeen vérifier bi bi ñëwé vérifier lañ ne ma effectivement lolo am wa man nak lolo dara leeraguma ci franchement parlant parce que je viens d'arriver dégg na ay wax rek mais nak comme élément yi ñi ci certainement de am de enquête dañ koy dina mënewu en en cours bu boobaa bu enquête bi wu fa na di ngeen mën am ñun ñëpp nañ amono information bi gëna a leer mais pour le moment wax dëgg yàlla mënu ma cee wax parce que dara leeraguma ci. Euh, mardi. mercredi mercredi lañ jël fête mais mardi bi laa ko gëj gis. non non amul comportement en tout cas à l'école amul benn comportement bu bizarre boo xam ne di mën a remarqué ni mi ngi souffrir intérieurement voilà école amu fa élèves yaa ngi ni mënuñ ma témoigner chaque fois il est gée waxtaan bëree football lépp lay def waaw wax dëgg yàlla. te la école moom mënoo remarqué ni am na lu ko métti. waaw âge am a doon 14 ans 14 ans diggante boobu âge bi. CM2 cm maa ko yore en CM2B à l'école Lamane Gomak Faye si excilement 1 yoroon naa ko c nag mais xam naa ko daal parce que xam naa ko bu baax mais amul benn comportement bu incorrect yaru

tekkil ëllëg la tekkil famille bi tekkil société bi tekkil réew mi aussi donc lii bu dalee seen kaw rek dañ koy métitlu ñun ñëpp mbokk yi jot nañoo dugg nag ci biir kër gi daal di nemmeeku njaboot gi ak it ñi nga xam ne tiis wi moom la dal moom ñoo dal ci seen kaw muy famille saw fi nga xam ne Bilal fii la euh, génnee àdduna ñoom nag daal di nañoo indi ay tegtal yu leer ci seen doom boobee di Bilal na mu génnee àdduna ngir indi aussi ay leeral ci nit ñi la ñu wax ne dafa xaroom xaruwul tey nag euh, am nañ ci ay firnde te ñu ngi leen di massawit di leen euh, jaal tiis wi dal seen kaw